ñu sant yàlla mi ñu may fanaanuk jàmm ñu tàllal ko suñu yoxo ñu ñaan ko mu may ñu kendaluk jàmm ndax moo ñu ne ud'uuni astajibu lakum ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma wuyu leen sàkku leen fa la ngeen tile ma defal leen ko wax leen ma seeni soxla yi àddina ak seen soxla yi àllaaxira ma fajal leen ko moo tax mu ne ni ñaan leen ma woo leen ma astajibu lakum ma wuyu leen walla ma nangul leen la ngeen may ñaan mbokk yi ñu ngi tàllal suñu loxo yàlla di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayyinna bisalaam wadxilna aljannata daaraka daar salaam ñu ngi lay ñaan yow buur bi tabaraka wa taala mi yore jàmm mboolem xeetu jàmm yi ci sa moomeel la nekk ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla nga aar suñu réew mi di Sénégal sàmm ko wattu ko waacel ñu jàmm yu nekk ci sa nguur yàlla ñu ko dottil yàlla nga ñu ko dottil su suñu territoire bi amin ya rabbal alamin keroog ba ñuy dajek yow yen na doon ci jàmm këru xéwal ba nekk ci sa moomeel di sa këru àjjana yàlla nga ñu fa tàbbil ci jàmm amin ya rabbal alamin mbokk yi jàmm boobu ñuy ñaan nag dafa am la dafa am la koy suuxat dafa am la koy meññaloo mooy la nit ñi di wax na doon jàmm la nit ñi di bind na doon jàmm na nit ñi di nekkee ci pinc mi na doon jàmm su ko defee buur yàlla daal di ñu wàcce jàmm joo xamante ne dina kawe suñu njort yon nañu ko yàlla yombalal ñu dund ci jàmm suñu cër yeeg suñu jumtuwaay ya ñu yàlla dénk ñuy jëfe jàmm ñu di ko melo su ko defee yàlla dal du ñu muur malaanu jàmm kiiraayu jàmm ñu dund ci jàmm yal nañu ko buur yàlla tàggatal ngir ñu mën ko jëfe amin ya rabbal alamin mbokk yi yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi xam ngeen ne noo ngi nekkoon ak yéen ci fàttali ba ñuy fàttalanteeg mbokk yi lenn ci ña askan bi wóolu yóbbante leen béréb woo xamante ne mooy bérébu pencum ndaw réew mi ngir ñu toogal fa askan bi ngir ñu taxawee fa askan bi taxawaay ju mucc ayib taxawaay boobu noonu nag ñu nit ndegem yàlla ñu nattoo ñu nekk taalube mbindum ndeyjoor ñu nekk taalube ci daara yi yàlla suñu constitution di suñu référence mooy suñu ballukaay mu doon istinbaat ballukaay ba ñuy nampatale suñu lañuy yëkkati ñu di ko roote ci géeju alquran ndegem wet boobu la ñu yàlla nattoo kon ñu nit côté boobu la ñuy laaye biir jëmale ko ci ndaw ya ñu yóbbante ci pencum ndaw réew mi yéen ngi fàttali ko suñu waxtaan ya weesu woon ñu ngi doon waxtaan ak mbokk yi di laaxe biir di joxe nasiha jëmale ko ci ñañu war a toogal ci pencum ndaw réew mi ci melokaanu jaamu yàlla ju baax ji fi nekkoon di nabiyullahi daawuda alayhi salaam di woy jur ci yonent yàlla suleymaan alayhim salaam yonent yàlla daawud yàlla dafa ne suñu yonent bi di ar rasulul mustapha salaa sallam muñ ci liggaay di wax jëmale ko ci sa jëmm ji te nga fàttale ku melokaanu suñu jaam ba fi nekkoon ñu di ko wax daawud alayhi salaam mu doon borom vision bu yaatu mu doon borom xel bu yaatu waaye mu doon borom yiine bu sel ba tax na daanoon na jébbal lépp loo xamante ni yàlla wursagal na ko ko ci xëytu xéwalam yi mu daldi ko delloo yàlla mu daldi di delloo yàlla njukkal mu di sant yàlla ci xéewal boobu ko yàlla xéewalal critère yooyu bu mu dajee ci yenentu yàlla daawuda alayhi salaam yàlla ne yenentu bi ne ñu daldi ko tàggatal montagne yeeg xeer yi ñuy àndandoor ak moom ñuy sabbal seen boroom ci ngoon ak ci suba si waaye ma tàggatal ko njanaaw yi tamit njanaaw yi nga xamante ne ay kuréel yu wuute lañu waaye dañuy ànd ak yonentu yàlla daawuda ñuy sàbbal yàlla xom njanaaw yi tamit dañoo daal di jébbal seen bopp fa yonentu yàlla daawuda ndegem daawuda alayhi salaam daa jébbal boppam ak la ko yàlla compal ci nguur mu daldi di jébbal lépp fa boromam buur yàlla daal di ko tàggatal lam ñu tuddal nii waaye njanaaw yi tamit ñu doon ñu jébbal seen bopp ci yonentu yàlla daawuda ñuy ànd ak moom di jaamu suñu borom subhaanahu wa taala buur yàlla ne ba léegi ñoo ko dégëralal nguur yañ ko jox waaye ñu jox ko la nga xamante ne mooy xikmata te mooy xereñteef nasaraan di ko woowee sagesse yàlla ne gannaaw buñ ko dëggëralee ñu jàppandalal ko mu mun a diriger doj yeeg njanaaw yi ak yeneen mbindaafoon nii waaye ñu jox ko xerañteef xam-xam boo xamante ne mooy xikma pour ngir mu war a mën a diriger yooñu ñu ko ko tàggatal ngir mu war leen war a mën a doxal ci xerañteef bi nga xamante ne buur yàlla moo ko ko tàggatal waaye buur yàlla ne ba léegi ñoo ko yenkeewal yombalal ko wa faslul xitaab ngir mu war a mën a leeral discours ba muy jëmale ci ñamu diriise ak xereñteef ba nga xamante ne moom la war a mën a saytu ñamu yilif ci nguuram moom daawuda alayhi ñu ngi doon waxtaan ak yéen keroog ba ñaari jëmm ni cëpp foofu mu nekkoon di jaamu boromam ci mihrab bi gannaaw bu mu tijji jaarukaay yeeg buntu yeeg fenêtre yi wàcci rido waaye mu gis ñaari jëmm ni cëpp ci kanamam ñu naan ko ñun de dañoo ñëw ngir nga àtte waaye bul tiit bul ragal xam ngeen ne ba ñaari jëmm yooyu doon jox yonent yàlla daawud keroog ba ñu duggi ci moom fekk ko mu nekk ci mihrab bi ñu ne ko bul tiit bul ragal bul raf waaw ñaari jëmm lañu kenn ki dafa jàppane moromam dakaa tooñ keneen ki jàppane moromam dakaa tooñ waaw ñu ne ko nag dañoo bëgg nga àtte ñu ci dëgg waaw bul jeng bul nëbb dëgg te bëgg nañu nga àtte ñu si dëgg te nga jubal waaw comme slogan suñu gaañi rekk jub jubal jubanti yan leen ko yàlla yombalal ñu ne ko nag nga orienté ñu ila sawa sirat ci yoon bu jub bu nga xamante ne doo jeng dem ci wet wi doo jeng dem ci weneen wet bi ñu ne ko kenn ki si ñoom kenn si ñaar nit ñooñu fekk yonent yàlla daawuda foofu mu nekk di jaamu boromam mu ne ko man kat dama yore quatre vingt dix buñ ko munee melale comme xar mu ne ko am na juróom ñeent fukk ak juróom bopp mala waaw jur yu gàtt waaye kii moom benn dong la yor mu bëgg a jël sama benn bi boole ko ci quatre bopp tedd de mouton yu mu yore waaw mu ne ko nag wax na ma bi wër na ma ci wax nag waaw te tamit bëgg nañu boo ñuy atte nga àtte ñu ci wax bu leer nañ daawuda alayhi salaam gannaaw bu mu dégloo kenn ki kooku joxe discours am balaa keneen ki di wax mu daldi di jël décision ngir atte mu ne waa ji ne cooñ nga sa mbokk bi ci li nga ne mu jox la benn xar walla benn bopp mala bi mu yore te yow nga yore quatre-vingt-dix-neuf bennam boobu nga bëgg yokk ci sa quatre vingt dix yi daal loolu xamal ne tooñ la waaw su ko defee gars yi daal di disparaître ñu daal di bàyyi daawuda foofu mu nekk aaya ba toftal ci aaya ba ñu doon géem a tekki moom lañ leen bëgg a andil bi iznillahi subhaanahu wa taala lii yëpp ñu di ko yóbbante teg ko ci loxo ñañu jiital ña askan wi tànn ngir ñu teewal leen assemblée national ngir ñu référé ci suratu saad la yàlla melale melokaanu yonentu yàlla daawuda alayhi salaam mu ne yonentu bi ne yàgg say xeet jikko yonent bi ma wax ni di nabiyullahi daawuda alayhi salaam na ko jikkoo ci seeni dundin àttekat bi na jikkoo yonent jikko yonent yàlla daawuda alayhi salaam waaye askan bi tamit nañu jikkoo jikko yonent yàlla daawuda alayhi salaam ngir ñu war a mën a njiit ñi nga xamante ne ñooñu la ñu jiital ngir ñu taxawee ñu ci nguur gi walla ñu ñu jiital ñu tànn leen mu tombeek nameelu yàlla ñu ne leen na ngeen ñu taxawee taxawaay ju mucc ayib ci pencum ndaw réew mi kon jikko yonentu yàlla daawuda ci aaya bi wala ci saar bi képp ku dem xool suratu saat dinga fekk aaya bi ci béréb bi nga daal di ko installé ci sa jikko kon aaya ba ñu war a toftal ci aaya ya ñu géem firi nii mooy fu mu leen wax ne qaala laqad zalama ka bi suaali najatika ila niaaji axii mu ko ca digg digg digg xaw ngaa tooñ waaw tooñ nga de yow mi bëgg a jël benn xaru waa ji narkaa yokk sa juróom ñeenti xar yi ko defee nga am téeméeru xar kii am benn xar kii yore benn xar kooku nga bëgg a jël benn xaram teg ko ci sa xar wi ah loolu tooñaange la de waaw ah, loolu moom tooñaange bu mag la sax yow nga jël quatre-vingt-dix-neuf xar kii yor benn xar munoo koo jox moom it mu am leneen lu mu yokk ci benn bi mu am ñaar wala ñett waaye benn bi mu yore nga bëgg kaa yokk ci sa quatre-vingt-dix-neuf yi ah fekk keneen ki waxul daawda àtte na fekk keneen ki joxe wut version waaw bu ñu waxee lii rek ngay daal di disparaître daawda di jaaxle buur yàlla ne yonent bi wa inna kathiran min alxulatai laa yabgi baaduhum ala baadin illa alladina aamanuu wa amilu saalihaati hum wadanna daawuda annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa xarra raakian wa anaab buur yàlla ne yenentu yi yàlla ne yenentu bi sala sallam la daawuda di doxalee ni kat la gën a bëri ci ñi àtte la gën a bari si ñu yore cëggalu guy ñay atte décision atte ci loxo ñu bari ci ñu mu tëral ña yore dernière décision yi ci doomu aadama yi ñu ci gën a bari moo tax yàlla ne ko wa inna kathiran la gën bari ci ñi nga xamante ne minal xulataa yi ñay dogal mbir yi ci seen béréb bi yañuy dogale ha la yabri baaduhum ala baad dañuy bugg di noot lenn ci ñenn ñi waaw yàlla bëgg woon bi ne lu gën a bari ci ñu yore dernière décision yi du ñu àtte ci la jaar ci digg bi du ñu àtte ci yoon dañuy bëgg di noot ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi waaw yàlla ne du ñëpp nag waaye la gën a bëri xoolal daawuda ni mu àttee ni waaw ñaari nit ñoo ñëw ñu wax seen mbir léegi kenn ki joxe version kenn ki joxewul version daawuda daal di àtte ne waa ji ne tooñ nga la tax nga war a jël benn xar ba mu yore nga nar kaa teg ci sa quatre-vingt-dix-neuf xar bi nga yore loolu xel mën naa nangu ne tooñ la waaye la génn na daawuda xaar ba keneen ki wax boroom benn xar bi na wax version mu dégg kooku tamit comme waxu ko mu atte moo tax yàlla ne ah daawuda daal àtte na ci kàddu njëlbeenu nit ba wax verson léegi ñaareel bi moom amul verson ah kañ est-ce que wax na ko déedéet te Dawda àtte na est-ce que loolu mooy lu jub déedéet est loolu mooy lu maandu déedéet moo tax buur yàlla ne la gën a bëri nit ñi daal ah dañuy nangoo noot ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi waaw nee na nag ah illa alladina amanu lu dut ña nga xamante ne dañoo gëm yàlla ñooñu kañ ñaari nit bu ñu ñëwee taxaw seen kanam dañuy déglu ñaari nit ñi ñëpp ba ñu xam digg bi fu mu ah, féete ñu daal di atte waaw yàlla ni illa alladina amanu lu dul ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla ñoom atte bu ñëwee seen diggante bu ñu recevoir benn courrier wala benn dossier ba ñu war a atte dañuy diglu ñaari camp yépp ba mu leer ñu daal di atte illa alladina amanu yàlla ne loolu ñu gëm yàlla ñooñu kañ ñaari version yépp la ñuy déglu ñooñu ñooy làmboo jikko joo xamante ne wa amilu saalihaati dañoo toftal ci ngoom yàlla bi ay jëf ju sell jëf ju baax jëf ju rafet waaye yàlla ne ha ñooñu de wa qalilun ma ñooñu ñoo gëna néew ci pinc bi ñay doxal doxalin wi ñooñu dañoo néew de gis nga fi mbokk yi bu ñu xoolee bopp aaya bi yàlla ne wa inna kathiran min al lu gën a bëri si nit ñi yore dernière décision yi ci ñay àtte dañuy nangu noot ñenn ñi ci kaw ñenn ñi bi maanaa duñu jaarale àtte bi ci yoon yàlla ne lu dul ñu gom yàlla ñu toftal ci gom yàlla wi amalu saalix jëf ju baax ah yàlla ne ñooñu kat ñooy wa qalilun maahum ñooñu ñooy ñu gën a néew ci pénc bi ñuy àtte ci dégg ñuy àtte ci yoon di àtte ci màndu ñooñu dañoo néew ci askan bi ñu ñooy minorité ci pénc bi boo koy xool di ëpp limu baaraam ñay àtte ci dégg boo demee ci magistrat yeeg ci juge yi néew na nga fekk mbooloo yu bari ñoo xamante ne dañuy àtte ci dégg yàllaa ko bindee noonu te yàllaa ko tiralee noonu subhaanahu wa taala moo tax bum ne wa qalilun maahum tuuti ñu nekk ci attekaay ñuy atte ci dëgg ñuy atte ci màndu ñooñu ñu néew lañ bu yàlla waxee li buur yàlla ne wazanna daawuda annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa xarra wa anab buur yàlla ne yonentu bi ne bi lii xewee nag yonentu yàlla daawuda alayhi daldi njort daldi am yëg-yëg bu toll ni aa buur yàlla kat dakaa teg fitna bu toll ni mu teg ko fitna atte diggante ñaari nit waaw mu déglu kii dégluwul ki te atte bi jib na daawuda alayhi salaam daal di yaakaar ne lii daal nattu la bu ko yàlla teg muy xool ba xam day àtte ci maandute walla day dëng ci àtte bi ginnaaw si nag ci la daawuda ne ah kon man dama déglu kenn ki keneen ki sax déglu ma version ma daal di àtte waaw yonent yàlla daawuda ci saasi daal di jéggalu daal di sàkku njéggal fa yàlla moo tax mu ne fastaghfara rabbahu wa xarra raakian wa anaab mu daal di sàkku njéggal ci saasi mu xam ne def na erreur yonent yàlla daawuda daal di reconnaître erreur am ci saasi mu daal di ruqu mu daal di delloo boppam ci boromam mu daldi di reconnaître ba mu def njuumte ba mu def waaye mu nangu ci kanamu boromam ne jaamam dong la waaw mu daal ñaan yàlla ngir yàlla jéggal ko mbokk yi bu ñu xoolee aaya anaab baatu anaab ñëw na ci aaya bi walla ci e, saar bi ñetti yoon ndax bu ñu xoolee ci njëlbeenu bopp aaya bi dinañ fa fekk wadkur abdana daawud zul aydi innahu awwaab loolu benn la waaw bi boo ñëwee dina gis ci wa tayru maxsuuratun aw maxsuuratan kullun lahu awwaab boo ñëwee fii tamit di nga gis ne buur yàlla ne suñu borom tabaraka wa mu ne wa xarra raki an wa anaab naam baatu anaab ñëw na fi benn yoon waaye awaab ñëw na ci aaya bi awa wala ci saar bi ñaari yoon loolu yi formaawu jébbal sa bopp ci sa borom la subhaanahu wa kon ñu nit ñu ngi yóbbante aaya bi ak lamu mu firi ak la wundu ci ñañu yóbbante ci pencum ndaw réew mi nañu xam ne askan baleen yóbbante dañ leen yóbbante ngir ñu toggal leen fa anam ju mucc ayib nañu sóoraale yàlla ci seeni wax nañu sóoraale yàlla ci ña yóbbante nañu sóoraale yàlla ci la bàyyi muy dugg ci askan wi nañu sóoraale yàlla ci la ñuy bind waaye ñu bañ jiital tamit seen intérêt personnel intérêt population ba leen taxafal nañ leen bàyyi xel ñu suur leen ci lu bëree bëree bëri loo xamante ne mooy lay njëriñ askan wi gannaaw bu yonent yàlla daawuda alayhi salaam daal di jéggalu ca mu daldi delloo xolam ak xëtëram ak xelam lépp fa yàlla mu jébbal jëmmam fa yàlla mu nangul ne yàllay boromam moom jaamam dong la yàlla ne fa gafarna lahu dalik ñu daldi ko jéggal erreur boobu mu def wa inna lahu indana la zulfa wa xusnul maab yàlla ne ñun bokk ci ñi reconnaître yonent yàlla daawuda jaam bu mu doon suñu jaam waaye ñu def ko mu doon ko ñu jege waaye nag waa jàllal nañ ko fa ñun yàlla béréb bi nga xamante ne béréb bu yiw la bërëb bu sell la wàccuwaay ju mucc ayib la keroog bis pénc fa lañ koy wàcce ñun yàlla subhanahu wa taala suñu jaam bi di ci yàlla daawud gannaaw bu mu reconnaître erreur am yi mu def ñu daal ko jéggal ci loolu mu juum waaye gannaaw bu mu reconnaître ne juum na yàlla ne farna lahu jéggal nañ ko daalika loolu mu def atte bu mu def kon yow mi atte bés boo juume ci sa atte mu doon juumte du tayef boo jéggaloo buur yàlla jéggal la buur ne wa inna lahu naka moom daawuda partage nañ ci moom may nañ ko indana si ñun la zulfa mu doon ku ñu jege waaye keroog bés penc wa xusna maab dinañ ko waajalal wàccuwaay ju mucc ayib wàccuwaay bu rafet wàccuwaay bu taaru te mooy xéewalu arjana ba ko yàlla di wàcce subhaanahu wa taala bur yàlla suñu borom tabaraka wa taala bi léegi mu ngi ni di avertir daawuda avertissement ba yàlla di avertir yonent yàlla daawuda ñu koy avertir ña nga xamante ne ñooñu toogal pincum ndaw réew mi ndax suñu diine bi da di diine laaxante biir moo tax yonent ne ak diinu nasiha diine bi kat diine laaxante biir la ba tax na buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di yedd daawuda mu ne ko yaa daawuda yow sama ndaw bi tudd daawuda inna jaalnaaka man yàlla maa def xalifatan nga wuutuma fil ardi ci kaw suuf si kon faxkum nanga nga àtte bayna naasi ci diggante nit ñi bil xaq ci dégg wala tattabi al hawa bul nekk fi di topp sa bànneexu bakken su ko defee haa fa yudilluka an sabilillah topp sa bànneexu bakken dina la taxa sankuloo ci yoonu yàlla bu jubbi inna alladina yàlla ne ñi nga xamante ne yudulluuna an sabilillahi dañuy réeralaate nit ñi dañuy sankuloo nit ñi ci yoonu yàlla bu jubbi yàlla ne lahum adabun shadid ñooñu kat ñeel na leen mbugal ju métti fii ci àddina waaye bés penc yàlla dina leen ñamal mbugal ju métti bi ma nasu yowmal xisaab fàtte fàttelu fàtte fàttelu ba ñu géem a fàtte bés ba ñuy àtte jaami kon yow mi nga xamante ni askan bi yóbbante na la ci pencum ndaw réew mi nga la waay na nga àtte ci dégg na nga woote budget yi ci dégg na nga signé la war a tax nga war a signé na bañ a signé la tax nga bañ a signé bu fekkente ne la nga xamante ne boo ko wotee xam nga ne ci sa conscience lii jaaduwul bu ko wote nga xamante ne lii jaadu na na nga sóoraale yàlla sa diggante la nga nekkee daal moo tax yàlla ne yow sama ndaw bi di daawuda mu ne ko yaa daawuda yow sama ndaw daawuda inna jaalnaaka xalifatan fil ard man yàlla maa la samp ci kaw suuf si kon yéen député yi tamit askan bi ñoo leen samp ci assemblée national kon yàlla ne daawuda faxkum bayna naasi bil xaq na nga àtt ci diggante nit ñi ci dégg kon yéen député yi tamit ndegem ci coobare suñu borom ak ci nammeelam waaye sabab bi mooy askan bi ñoo leen tax a toog ci pencum ndaw réew mi na ngeen jëfee déggu bi nga xamante ne moom la leen askan bi taxafal na ngeen déggu ci la ngeen di nekkee na ngeen déggu ci la ngeen di wax na déggu ci la ngeen di wote na ngeen déggu ci la ngeen di signé lépp na doon ci dégg waaw na ngeen déggal seen bopp foofu ngeen géema sóobu ci liggéey ba leen askan bi di xaare su ko defee ñu ne ñu ngi leen di yóbbante yóbbal bi nga xamante ne moom la bur yàlla wax yonent yàlla daawuda mu ne ko wala tattabiil hawa bul topp sa banneexu bakken ñu nit ñu ngi naan député yi ne ngalawaay bu leen nekk ci assemblée nationale di topp seen banneexu bakken ndax bur yàlla daf ne fa yu yudilluka an sabilillah topp bànneexu bakken nag dina la sànkuloo ci njubub yàlla yàlla ne inna alladina ña nga xamante ne yudilluuna an sabilillah dañuy sànkuloo nit ñi ci yoonu yàlla dañuy réeralaate jëmale ko ci yoonu yàlla dañuy réeral dëgg di installé neen ak ngelaw yàlla nee na lahum adabun shadid ñeel na leen mbugal ju métti bi ma nasu yowmal xisaab ci li ñu géem a fàtte fàttelu bés baleen yàlla di atte bés baleen yàlla di atte am na ñoo xamante ne dañ koy ignorer gëmuñu ko dañ koy fàtte fàttelu gëmuñu ne sax bés pinc dina taxaw ba yàlla di leen atte ci lañu ñu nekkee di ko jëf kon ñu nit ñu koy moytuloo ña ñu yóbbanti ci pincum ndaw réew mi mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom nasaluhu jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulata umurina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 aqulu ma tasmauna wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli zamin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu